alhamdulilah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu loolu yëpp nag suñu bopp la ñuy dimbale ndax ni ko sëriñ bi di sotti sottami ko gannaaw bu pare fi mu nekk nii buñ paree rek tey danañ dem na ko nangami saakoo fa ne mu ne nañ ko dagg saako yu mag yi def ko saako yu ndaw bay xam ne cinquante la su ko defee ñu daal di daggat ko ay cinquante cinquante mu ne bari a ngi nii yoo xam ne fii la ñuy xendu tey fii la ñuy xendu suba fii la ñuy gannaaw suba yooyu yëpp pour dagg loolu ba mu mat ñu ne ko nangami ton moo fa nekk bu nekk cinquante cinquante la mu daara génnee nag ne joxe naa ndigal te liste ba nga xam ne moom lañ bindoon ku nekk nañ ko jox lii ku nekk nañ ko jox laa su ko noonu la ñuy def waa miri nag ku yàlla dogal sa sa tur ne ci sa wërsëg ne ci dana xeg si yow sëriñ daara yi suñ mu nekk nii bi ma mujjee bind maa ngi ci téeméer ak fukki daara ak juróom te xam na ñoo xam ne bindagul te ñooñ ci daara te ñëpp saako dana dem ci ñoom waaw dana dem ba ci hôpital yi dispensaires yi dana dem ba ci campinal yi ba ci hôpital yi ba yooyu yëpp nag mu ngi ko royee ci lan Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu dem ba kutaal suñ mbokk yooyu waaw loolu yëpp liggéey la boo xam ne sëriñ baa koy def sa sa saako dugub bi sa ñeenti kilos yi sa juróom wenn kilos yi sa ñetti saako yi mënoo ko woon a séddale noonu waaye boo indee bañ sottil ko ko fii mu tasaaree ko bu ñu tasaaree ba lañ nekk ci liste bi daj di ci ñu tëj magasin mu jëm kañ buñ ne weeru kor wi léegi te ñu ne taafeer mu ne nañ ko tasaare xaat su ko defee pour nit ñi xam luñ xooree ndax dañoo bëgg surtout ñangeen ñangeen yi fonde boo xam ne moom la ñuy lekk bon ñaari yoon lay séddale bon marché si lu fees fees fees fees dañ ko séddalee noonu yaay yi nga xam ne ñooy yaay suñu yaay umu umahaatul ñoo ñu def leen a saxalal weer wu nekk mu jox leen saakoob dugub jox leen saakoob ceeb su ko defee lu tooy ci loxoom te man leen koo yokkal mu yokkal leen mooy ñaari si biir waaw fii am saako am dugub ceeb boobu nag moo jëm ci yaay ceeb boobu moo jëm ci yaay yi weer wu nekk ñu def boo gisee ñu kara magasin mi noonu dañoo xam ne daf fi yàgg mu ngi fi jëm ba déwén danañ fa defee dugub ji it naka noonu bon da ngay seetlu liggéey bu rëy boobu mu ñuy defal ndax na ne Cheikh Ibrahima tàng bi mu fiy nekk jamono neexeekutoon nii te ñoo yaay yooyu ñoo fi ne moog yaay yooyu ñoo fi nekkoon di sonn bon yaay yooyu bépp teraanga boo xam ne dikk na bàyyi ko fi indi bon yaay yooyu waru nit ñi waruñoo tedd ñoom ñuy sonn moo tax ba xam na ci ñoo xam ne seen magasin yi boo ci demee ñoom yaayoo seen pukusi dafay fees dell ak dug dangu nekk di fees dell ak ceeb ci baax ak seex naa Ahmad Tidiane mii ak ñi xam ne ñoo leen jiitu woon bon daal ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla yan yàlla indi hubbee yan yàlla indi hubbee taalibe yi xóor na leen ne man na war na ñoo jox Cheikh Ibrahima bëgg na ñoo joxe bëgg a joxe war a joxe xam loo joxe li leen tere di mën a joxe nañ bëggee joxe rek mooy machine yu manqué waaw wóor na leen ne bëgg na war nañoo jox Cheikh Ibrahim ndax xéwal gu jox rek ci bu ñu xam rek ci moom la baaxee ko te nuñ ko gën a santee rek xéwal gën a yokk